inondation yi sonal na aduna bi Sénégal mais partout ci bi même problème la am Yoff quartiers yo donc euh, am ay jafé jafé inondation muy tongor, muy muy muy euh, service population yi évacuer le lendemain def naa tour bi xool may féliciter euh, équipe municipale mais di féliciter aussi population yi ak euh, équipe technique yi di remercier aussi euh, Fray Yoff ak euh, kilifa Yoff parce que ñun li ñuy def yëpp dafa am fu mu wéeru moo tax tey si ndaje tey bi président Fray Yoff moo nekk sama boor ñu jënd fukki motopompe Yo xamantene dañ koy positionner si quartier yi xamantene dañu am jafé jafé pour que bu ndox bi taxawé rek ñu dundiko immédiatement loolu donc tek nañ ko ci loxoom pour que mu yóbbu ko ci quartier yoyu euh benen bi moy que ne xalé yi koy da liggéey itam ci terrain bi il faut ñu jox leen ay jumtukay jox nañ leen ay bot jox leen ay tenues yo xamantene mom lañuy sol mais quartier bu nek jox nañ la benn fond de roulement lo xamantene ci mëna japp pour jënd carburant touti te duñ leen bàyyi itam dañuy dem di leen soñ di leen euh, donc euh, euh, encourager lépp lu ci war ñu continuer def ko. may wax ne ba ñu demee Tongoor aussi ñoom wane ñu ngi liggéey si benn projet bu am solo parce que foofu bu yaakaar naa ne fa la mbir bi gën a méttee fa la gën a méttee parce que bu dee mbengeen bu ñu réglé problème bu ndaw rek boo xamante ne suba dana am benn réunion pour loolu yaakaar naa ne mbir mi dana sotti bu dee ndenaat bu benn tali bu ñuy defar foofu bu ñëwee ak li mu laaj lépp ñu def ko si itam dana wàññi lool. bu dee euh, Ndioufène si ay point la rek war nañ ko mën a régler mais Tonghor dafa nekk situation boo xamante ne projet bu gën a approfondi la laaj ay euh, euh, ingénieurs yu dëkk si quartier bi ak ay xale ñu ngi siy liggéey wax naa leen gaaw leen dossier boobu pare parce que dossier boobu da ngeen ñëw jàppale si municipalité bi parce que liggéeyu mairie la bu fekkente ne rek yéen xam ngeen ne dynamique communautaire dafa am solo ba ngeen nekk si ñun dañ leen si war fekk lu mu laaj rek ñu def ko si maa ngi xaar étude boobu te yaakaar naa dañ ma ko jox ñu ma ko joxee rek danaa euh, réunir fii le conseil municipal ñu def ko dossier wu maire bi dootul nekk dossier commune dossier Tongoor bu boobaa lépp lu si war rek ñu def ko si.